tay am nañu honorable député sëñ Cheikh Thioro ñu ngi koy sant bu baax di leen remercier ci sen législature bi ngeen demoon yéen ak soxna Fatma Mbodj té loolu suñu ndam la ndamu Touba la ñu leen ci sant bu baax di santit mag ñi nga xam ne ñoo teew fii ndax lan Touba dafa woote magi Touba ñoo woote magi Pastef ñoo woote te ñu fi toog ñëpp ay mag ñu Pastef lu maa ngi sant nag sëñ bi Diouf ndax dafa def rappel bu am solo rappel boobu day baax ñu koy bind ci anaalu Sénégal di ko rappeler ndax loolu mooy tax nit ñi ak euh, xale yeeg mag ñi mën a adhéré bu baax ci programme mu Ousmane parce que dafay am ñoo xam ne lu bëri dañ koy réere te li mu wax nii c'est très important man nag dama bëggoon tey ñëw ci permanence bi permanence bi waratul tëju on est ñu ngi jëm deux mille vingt quatre mu le député permanence bi nay tijji ngeen wut ñu fiy taxaw. du fi tok parce que seigne bi limu wax dafa am solo intellectuel la te instant bi dañu am dañu tollu foo xamni dañu war dem vers l'avant ci kanam parce que fini jëm 2024 mille du lu yomb du lu yomb kon tijji len permanence bi ngeen wut femme de ménage ñu défar bu ñu ñëwee fekk fi ay nit ñuy laccé parce que ñi bëgg adhérer adhéré bëri nañu te ñu fexé dem jëli carte électorale yi xale yi voté noo vote bi bëri na ci kii bi nu mu tuddati ci carte d'identité yi nan leen lijjanti loolu gis nga yëf yi du toog rek di réunion action la ñu wax bu nu bëggee dem 2024 beneen point bu mujj bi mooy monsieur le député yéen a ngi dem assemblée taxaw leen ci mbiru Touba lu ngeen ci mën dama bëgg boo ëllëgee ñu ni Pastef kat député Pastef yi kat am na lu bëri luñ fa liggéey ba nga xamante ni képp ku doon jooy Touba léegi say mbir euh, defar nan ko loolu da leen di may point ba nga xam ne 2024 bu ñu fa yeggee du jafe day yomb loolu rek laa amoon ci li ma leen di wax wasalaam jërë ngeen jëf nit xam dara boo ko jàngatee di nga xam ne tegu na ci yoonu baax tegu na yoonu yor loolu moo dugal si politique politique bu ma sax ni laa voté rek mais nag man duma politicien duma politicien ba ñu jógee ci loolu may ñaan euh, suñu doom monsieur le député nga dooleel jigéenu Touba bu baax dooleel jigéenu Touba bu baax nga xam nga vote jigéen moom mooy jigéen moom mooy koo xam ne su fekkee ne elle est convaincue dina nekk këram togg añ def lépp daw sol yéreem dem vote di dellu siwaat kon monsieur le député notre cher fils ñu ngi lay ñaan nga dooleel jigéen